mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci biir Limametti di leen remercier encore une fois ci topp bi ngeen ñu topp comme toujours dañuy ñëw ak yéen ci information yi nga xam ne ñoo nekk d'actualité information yi nag nekk di concerner li nga xam ne moom mooy ballon d'or bi ballon d'or bi nag ñu war ko amal le 2 décembre bi nga xam ne ci leen jëm dem nañ doxantu ci mbedd mi nag tàll suñu micro ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi ñu wax ñoom kan mooy seen favori ak lan moo tax ñu daal di choisir kooku en fait lu la ñuy xalaat Sadio Mané lañ bëgg mu jël ballon d'or yi parce que lu mu wane daaw ak ren boo xoolee daaw bokk na si meilleur buteur du championnat Angleterre après ren tamit wane na lu bëri équipe nationale. kon bu daaw def na saison bu baax ren aussi mu ñëw wane boppam kon donc kooku mérité na ballon d'or bi ku ko moom ñun ñëpp xam nañ ne tey Sadio Mané mérité na mais tamit lu mu nekk noir quoi moo tax ñu bari tey mënuñu ko mënuñu mënuñu jàpp ni mën na ko jël. ndax tamit euh, bu doon bu doon nit ku weex la yaakaar naa ni dina ko jël ndax def na benn saison boo xam ne bu extraordinaire. ballon d'or bi dafa jot pour que ñu ñu jox ko. Euh, sénégalais bu ñuy wax Sadio Mané euh, parce qu'il a prouvé hein, wane na lepp lo xamné waron nako na pour mériter ko donc dañ ko war nañ ko ko jox parce que jot na. waaw parce que mom moko mériter tamit bien vrai que Messi Messi mom du nit sax laay wax waaw mom mom sax bokul ci jour yi li mu mom moom yàlla moo may machallah mais Sadio Mané tamit dafa wane ay preuve xam nga ñun ay joueur lañu xam nañ football xam nañ nu mu demee waaw mais ki mom da woné limu mën waaw te def na tamit ay résultats yu koy war mëna jox ballon d'or tamit. suñu xolé performance générale ci ben saison mom man sa ma la gis moko wara jël sincèrement parce que individuellement collectivement lu mu def joueur yu magi sa c'est ses dañ ko nangul Messi Hazard même Van Dijk donc man ma ngi dégg jour coach bi naan su euh, dañuy xol ku dàq football si sen génération Messi ni ngay jox ku dàq ku gëna a baax la saison Van ni ngay jox mais mom ku nekk sa avis rek ah. j'ai suivi ce matin l'intervention de l'entraîneur de Liverpool euh muy wax euh lu safano ak loolu euh, ça m'a donné même des céphalées et des ulcères j'ai eu des maux de ventre et des maux de tête je ne comprenais pas pourquoi un entraîneur qui encadre un Sadio Mané et des Salah entre autres muy dans ce sens c'était vraiment maladroit de sa part. qualité yu ñu euh, trophée gagné cette année je pense je que oh, il le mérite quoi il le mérite parce que franchement il a fait euh, pareil pour pour pour donc euh, je pense que man mom la jox favori. nañ ay africains yu bari yo xamné dañuy jël dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy prévoir jël Messi wala Chris té am nañ beneen doom boo xam ne africain nit ku ñuul la quoi. lima gis moy ñom daal ñoy def lu len neex sen côté bobu non parce que da ngay ree tas tamit ñun mom dafa am nañ ñuy xolé benn bët bu ñuy tek parce que ñun man mom jot naa football jot na dem Europe jaar naa foofu xam naa mu demee ci bal bi mais ñom la daar sen bir So le France football 193 euh, majorité africain voté comme je man à mais africain pas voté pour bañante kay yow africain mu saison bu tamit mais la communication africaine dafa très bu pour nous, noir ñu soutenir suñu Africains. africain parce que tu vois pas mal de Nous avons sénégalais sax il y a la jalousie entre le Sénégal et d'autres bah je ne dis pas à 100 mais même s'ils ne le disent pas mais il y a la jalousie entre africains donc euh, je pense que comme tu as par exemple suñu Messi Ballon d'Or euh, Argentine tout le monde euh, supporte Messi ou bien Amérique du Sud tout le monde se permet parce qu'il représente l'Amérique du Sud Ce je Sadio Mané Ballon d'Or il représente l'Afrique il représente le Sénégal donc je pense que toute l'Afrique doit être derrière lui pour le soutenir. voilà mbok internet yi gis ngeen li nga xam mom la sénégalais xalaat ci li nga xam mom moy ballon d'or bi lum ci mënti démé dinañ xam na kan moko wara jël ci 2 décembre bi nga xam ci lañ jëm feulé nga xam mom moy Paris ñu leen di wax nak ngeen continuer de suivre limametti ngir benn information bañ leen a ci li nga xam mom moy ballon d'or bi bu leen fatali tam beusale cloche de notification bi nga xam mo leen di mëna permettre comme toujours ngeen mëna am information yi fo leen mënti toll ma leen di jox rendez-vous benen yoon ci bi limametti ak yeneen information Education.